ban modèle moo lay daaneel ak foo mën a nekk ci biir réew mi jokkal ak ñoom ñu fekk la fa defal la liggéey bu mucc ayib dinañ gaaw te yéwén ci lool ci ay prix yu xéewale nag seen ay numéro téléphone 78 262 93 61 78 262 93 61 wala ngeen def 76 024 13 45 76 024 13 45 ak 18 safar déco liggéey bu baax ci ñoom rekk la fekk baax xibaar yi dooree ko ci ñancoo Sadio Mané moom na xam ngeen ne dañu ko opéré te lu mu gàtt-gàtt dina toog ñaari weer du football waaye kat Bayern de Munich gi nga xam ne fa la doomu Sénégal bi di football nee nañu du ñu jënd kenn ngir mu wuutu ko laata muy ñëw moom Sadio Mané li ñu bëgg ñoom waa na moo di seen gone gii di Mathys ñu yokk doole ja mu mën a jàppale Bayern de Munich file ak ñancoo Sadio Mané di ñëw xibaar boobu Sky Sport moo ko domicile bii di Vinicius moom nag dafa séq waxtaan ak Marca yéenekaay waaye nee na match yu mujj nag Real de Madrid am ko laata ñuy dem ca coupe di monde ba dafa tiitoon lool ci boppam yaakaaroon ni dina am blessure laata ñuy dem ca coupe di monde ba waaye Karim Benzema moo ko woone ko dalal gëmal sa bopp soo dalee ñi ngay jàkkaar lool ñooy tiit ci yow sax kon yow bul tiit gëmal sa bopp laata ñuy dem ca mondial ba di nekk à cent pour cent te jamono ji jotu ko dem na ngir jàppale réewam di Brésil xibaar boobu Vinicius Junior moo ngi ko dénk waa marka yéenekaay ñu jugee ci Vinicius jël doomu Argentine bi di Mauricio Pochettino mi nga xam ne moo doon tàggat Paris moom nag tey jii dafa séq waxtaan bu yaatu ak rajo marka waaye nee na Paris nag club bu naqaree tàggat la ñu ne ko lu tax mu ne Paris soo koy tàggat soo amee ndam dañu naan star yi ñoo gagné Kylian Mbappé Lionel Messi wala Neymar waaye su fekkee da nga am défaite dañu naan coach bi moo xamul dara moo tax Paris club bu naqaree tàggat la loolee Mauricio Pochettino moo ko xamle dénk ko waa rajo marka ñu jugee ci Mauricio Pochettino dem ca waa Juve ñoom nag seen gone gii di Daniele Rugani dañu ko bëgg a able ci weeru janvier bi ndax jamono amul temps de jeu foofee ca Juve waay Juve li ñu bëgg moo di bu ñu yeggee ci weeru janvier ñu wut club bu ñu ko abal able ko foofee ngir gone gi mën a doxal xibaar boobu Gazzetta de Sport moo ko xam xamle ñu jugee ci waa Juve jël doomu Pays-Bas bii di Xavi Simons moom nag ma nga ca PSV gone gi jamono jii ma ngi doxal foofee gone gi nag ca Paris la ko waa PSV jëndee woon tey jii Fabrizio Romano dafa séq waxtaan ak agent wam agent wam mi ngi tudd Raffaella Pimiente dafa séq waxtaan tey jii ak Fabrizio Romano Fabrizio Romano ne ko gone gi ndax mën naa delluwaat ca Paris mu ne loolu lu mën a nekk la ndax Paris am na droit bu saison bi jeexee mu dem jëndi ko ca PSV kon gone gi mën naa dellu ca Paris loolu lu mën a nekk la agent wam nag moo ko xamle dénk ko Fabrizio Romano ñu jugee ci Xavi Simons jël doomu France bii di Marcus sukkandikoo ci Sport Média 7 waa baax ñoo ngi xalaat ci doomu France bii di Marcus Thuram li ñu bëgg moo di bu ñu yeggee ci weeru janvier gis club bu ñëw bëgg ko fay ca xaalis bu doy noppi nañu ngir jaay ko. Sport Mediaset nee na bu ñu ca gisee dix millions d'euros noppi nañu ngir bàyyi ko mu dem. Bayern de Munich nag ma ngi koy bàyyi xel bu baax te bëgg nañu gone gi Marseille nekk ca France ñoom it ñoo ngi bàyyi xel doomu France bi te bëgg nañu ko waaye club ba mu nekk di Mönchengladbach nee na bu ñu gisee xaalis ci gone gi dañu koy jaay xibaar sport média 7 nekk ca Italie moo ko xamle. ñu jugee ci waa Borussia Mönchengladbach dem ca waa Bayer Leverkusen ñoom nag ki leen di tàggat di Xavi Alonso dafa séq waxtaan ak Bild waaye waa Bild dañu ko laaj ci attaquant bii di Hudson Odoi nga xam ne Chelsea moo ko able foofee ca Bayer Leverkusen dañ ko laaj ne ko ndax gone gi bëgg nga koo téye liggéey ak moom mu ne waaw waaw gone gi de suma sañoon waa Bayer Leverkusen bu saison bi jeexee ñu jënd ko ci Chelsea ndax gone gi mi ngi doxal te li muy def mën na ko moom nag Chelsea moo ko able foofee ca Bayer Leverkusen muy Hudson Odoi waaye jamono ji ma ngay doxal ca Bayer Leverkusen gaañi xibaar yi foofu la buuree xibaar yii nag ñoo ngi ci doon ànd ak waa